bon dafa bëri wax dëgg la waaye chaque jour bu yàlla sàq dañ may tooñ mais man damay tooñ ñaar bi amul employé bu ma mën a waxal naka sudul noonu employé dama lay jox sa gëdd jox la li nga doon mais su ma waxee réew mi dina toj de bàyyi leen ma nag sama silence boobu ba tey yéen a ngi wax ma ne pat damay dugg di direct sax ngeen di commentaire naan diw nee na dafa jënd ji woon reer nga dàq ko na leen wax dëgg bi na leen wax dëgg bi dëgg bi man duma tooñ man duma tooñ man duma tooñ dañ may tooñ chaque fois waaye man maay nit koo xam ne dañ may tooñ ma tooñ ñar bi mais arrêté leen sénégalais yi arrêté leen yéenay jàpp nit bëgg ko ba ñëpp taxaw ni kii rek ngeen bëgg ngeen xëy bëgg koo daaneel ndax seeka chaque jour man awma ja man maam Ndiaye Savon awma ja man ku ma defal loolu lu baax danga may fay lu bon man ku ma defaral lu baax danga may fay lu bon mais bu leen ma wax loo lan moo fi ñor bañ koy màcc ngeen may woo téléphone chaque minute ku nekk di ma wax lu nekk est-ce que xam ngeen lu ma barki waar alxuraan bu ngeen ma wax loowee dëkk bi dina toj de ndax kon dinaa leen wax lan moo wara lepp nag su ma nee pat rek bàyyi leen ma ma ne pat sama bopp bi bu nee ndaraas aw ma karaw li ma ci xam a bari damaa ma a nëbbal nit na dama am sutura Sénégal maa ci ëpp sutura man damay suturaal nit ba gaañu ki leen expliqué nag waxu leen dëgg man yërmande rek laa ànd ak doomu aadama man jàmm rek laa ànd ak doomu aadama yi defal lu baax teg la ci sama direct bi nga am visibilité rek commencé ma commencé giranteeg man mbagg génn wax pour am nit ñi sénégalais dimbali ndax sénégalais dafa am yërmande parce que dañoo am yërmande te yërmande mooy bu jugu ku tuutal nit parce que foofu la ñuy jaar barki Seydina Muhammad du ma tëkku mu dal ma du duma wax dara mu metti ma xam nga lu tax bu rafet laa ànd doomu aadama yi man ku ma àndal dimbali naa la man ku ma àndal teral naa la mais nag toro c'est toro sonn naa de te bu ma sonnee boo leen ma bësee ba ci miir wis bi damay génn ma wax coow li bu ma ko expliqué woon barki Seydina Muhammad ngeen dama maam Ndiaye yéenay jàmm yaay jàmbaar man su ma expliqué woon ngeen dama yaay jàmbaar li ma muñ dafa bari de boobu ba tey maa ngi muñ boobu ba tey maa ngi muñ toog na patt nag mais maa ngi toog ñuy nettali n'importe quoi di wax lu nekk te lu ñuy wax du dëgg ñu naan maam Ndiaye dafa bëri histoire ma ne patt parce que jote na fi jotewaat ko fi jotewaat na fi jotewaat na fi dafa am jaaru nit ñu mel ni man dañ leen tooñ à chaque fois te dañuy réagir te bu ñu réagir rek dañ leen naan dañoo bëri histoire man amul kuy génn di wax amul kuy génn di wax wax ne Mame Ndiaye Savon lii la ma def lan mooy dafa jënd reer nga dàq ko